أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه سبي الرضوان والتمكين bokku jullit yi bokku taalibe yi noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di jàkkaarloo yéen fii nga xam ne mooy barab bi nga xam ne mooy la ñu tuddee këru téere yi ci wolof muy maktabatu cheikhul xadim muy daaray kamil bi nga xam ne ñi ngi ci taxaw ngeen jàkkaarloog ñun ci petit écran bi ci écran bi nga xam ne ngeen jàkkaarloog muy waar wi TV fas yéene am ak leeral gu nu leeral téléspectateurs yi ñuy suivre à travers le monde dina wax ne barab bii li nu fi tax a teew mooy leeral te leeral dafay baax ci ki nga xam ne xamul ndax mu xam fa muy teg tànkam ndax war sakkir fa inna sikra tanfa'ul mu'minin lii ngeen gis ci sunu gannaaw muy ay téere sababu li ko fi indi mooy bëgg gi sëñ Tuubaa bëggoon xam-xam bëgg ko alxuraan lu ne ngeen dégg mu tudd ko ci alxuraan foo ne ngeen dégg mu wax ko fa barab bii di barab bu symbolique boo xam ne nekk nii ci yoonu murit histoire la ci ndax daaray kaamil gii bu leen fàtte na mooy kër sëñ Suwaybu bu Mbàkke sëñ sooy bu Mbàkke moo ko moomoon jëmm ji nga xam ne moo taxaw moo tax ñu taxaw fii di waxtaan di ko ànd ak yéen muy Cheikh Abdou Lahad mbake daf doon nit koo xam ne mboolem bëggu sëñ Touba moo ko mottali te bëggu sëñ Touba moom ñëpp xam nañ ne mooy alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yàlla sunu borom mi nga xam ne moo ko def muy xaadim rasul alxuraan jooju nag. nu nit masaan mel ci kaw àddina ba bind ko andil ko sëriñ Touba boo dikkee sa sikki soos yëpp da koy dindi histoire bi dégg ngeen ko ci njaareem waaye fii ci Touba it dégg ngeen ko fi Touba ju jëkk ja sëñ maam Ndiassy Cissé bàyyi sëñ Mor Mbay Cissé ci njaareem noon alxuraan lool ba defee ne moo ko dàq ñëpp tam doon dëgg bi mu déggee Serigne Touba ba ñëw di ko seete ci Touba ju jëkk ji fii ba mu dikkee sëñ bi def na ko njaase mu ne ko mu ne ko. noo def ak téere suñ borom bi ne ko dama ko man lool ba jàpp ne ko koy man maa ko dàq mu ne ko nan ngay nan nga ci nan nga koy liggéeyee mu ne ko dama koy bind suma nappee ñetti dërëm laa koy jaayee benn dërëm bi dama koy def ci njaboot gi benn bi ma jëndawaat koy këyit bi ci def ma bàyyi ko fii bu soxla dabee ma def ko ci mu ne ko njaasee taril ma alxuraan mu daal di tari bàqara di tari ba mujj sëñ bi ne ko teg ne ko ma doon wax ci yow dëgg la yow mën nga alxuraan kan nga gën a jegal ci fare yi mu ne ko sëñ ma sàmba job sàmm sëñ bi daal di bind aw kayit waaye laata mu koy bind def na ko demal nga bindal ma kaamil bi andil ma ko maam Njaase dem bind kaamil bi ba mu àgg bi mu jibee sëñ Tuubaa sëñ bi téye kaamil bi xamal ko ne kaamil bi kat gis naa ne nee na dara manqué ci moom moom du nekk di xool naan fii jum nga fi kaamil bi mu naan ko nangam manqué na ci man waaye kamil bi nee na ma kat dara manqué wu ci yow kat alxuraan yi ñu ma doon wax dëgg la kan nga gën a jegal ci fare yi mu ne ko Samba Diop Samb sëñ bi bind aw kayit laata mu koy bind daf ne ko danaa la xamal nag ne la alxuraan moomoo ko man mii maay borom loo moomul nag mënoo cee def mënoo cee dindi bind kayit wa ne ko boo demee ci ma Samba Diop sam ka jox ko ko sëñ ba bind ci ne ko njaase moom mu di ñëw di andi kamil bi bu dikkee na nga ko teral te teral téere bi te ñetti dërëm la daal jaayee téere bi. mu ñëw jox sëñ Masamba Diop Sam sëñ Masamba Diop Sam àgg ci waxandeem ubbiko ko ci lu toll ci ñett téeméer ci jamono jooje dikk jox ko ko bi mu ko joxee ñetti téeméer yi nag yëkkatiwaat kaamil ba jox ko mu ne ko kaamil bi sëñ bi daa waxoon naa ko jox mu ne ko li ma sëñ bi wax ci kayit wi moo ma dàqal téere sëñ borom bi maam Ndiasse wàññi ko bi mu dikkee Touba gi fii fi la fekk sëñ tubaa mu toog ku Ndiasse dem nga ba ñëw mu ne ko waaw mu ne ko loo fa jële mu ne yii lu ma yéem lool ndax ñetti dërëm laa ko doon jaayee mu jox ma ñetti téeméer delloo ma kaamil bi mu ne ko looy tax ma di la xamal ne nag alxuraan maa ko moom ndax loo moomul mënoo ko defar moom waaye dinaa la defal loo xam ne ci ba ëllëgee boo ko yàqul da ci jariñu say sët jariñu ci te ñëpp xam nañ sëñ Mor Mbay si lim présenté ci yoon barab bi sëñ sooy boo ko moomoon bi sëñ bi sancee Touba sëñ Mandoumbe Mbàkke fii ñu denc sëñ laat moo doon ab néegam sëñ bi fee ñu ko denc moo doon këram daara yi wër ko ci penku ak sowu gànnaar ak salum bi sëñ Mbàkke Kajoor ñëwee di ko seetsi si dafa woolu sëñ ma ndumbe mi newoon fii ci daara Kamil ne ko jëlal bagage yi ci sama biir néeg yóbbul ma ko ci sa néeg boobe ndax sama baay dafay ñëw te bëgg ma bokk ak moom kër gi ndax bu fi sëñ Mor Anta Sali ñëwoon du ma bokk ak moom kër gi ana ba mu ko waxee loolu ne sëñ ma ndumbe daa ñëw denc ko fii ñu denc sëñ Abdou Lahad tey moo doon néeg bi sëñ Tuubaa def na fi juróom benn weer fii la jógee it yàlla dogal mu daal di dem ci géej gi sëñ Abdou Lahad bi mu ñëwee comme ni ñu ko doon defee ci biir waxtaan wi barab bi jëmmi tabax bi rek quatre-vingt-dix millions la ci def quatre-vingt-dix million juróom-ñeent fukki millions la yëkkati xaalis kaas ci jamono jooje tabaxee ko barab bi ba mu àgg mu yëkkati soixante-dix millions jox ko sëñ Modou Mamoun Niang boole koog délégation ne ko demal ci réew réewi naar yi boo demee lu téere xam-xam jar bula la bu la seer tàqaleeg moom mu dem jënd indi ko fi mu daal di woo njabootu sëñ Touba gi yëpp. ak Cheikh si ne leen képp fu sëñ Touba taal ab taal képp ku mas bindu leetar képp ku mas a dénkaan tañ jaarale ko ci kay te sëñ Touba bind la ko andil ma andil ma ko fii boo duggoon ci bibliothèque bii ci bare bari boo demee danañ la wan leetar yi kon fii ku fi ñëw amul dara loo fi laaj te desu ko wan loolu nag sëñ Abdou Lahad da cee suyee bu am solo diggante dëkk bi ak Cheikh Abdou Lahad it li ma waxoon sànq rek wa maskani fu minal fujaari wamnun ala ahlin bi ma in jaari moo fi indi moo fi jëlee kàccoor yi moo fi jëlee saay-saay si waaye moo fi indi ndox mi ndax sëñ bi ne yàlla na nga ma musal ci sama dëkk bii ci bépp kàccoor boo xam ne si bëgg nga fee dëkk te defal ma fi ndox mu baawaan muy walangaan nekk dex sëñ Abdou Lahad bi mu ñëwee première mission ci loolu la taxaw kon li nga doon laaj soxna si ci wàllu sécurité brigade gendarmerie bii la fi jëkk a taxawal dem jaar ko fa mu ko war a jaar wut kayit yi ci autorités yi fi nekkoon. bañ permettre ko jox ko ko mu ñëw samp ko fi bi yàlla dogalee ñu ne commissaire daal di fi ñëw daal di sanc tàmbali doxal lu waay dëkk bi mu tax mu daara woo bokk yi ñëpp ñu dajee mu ne leen dafa am lu ñuy lu sëñ Tuubaa bañ ci dëkk bi te gis naa ko fi te dama bëgg nag laaj leen ci seen xalaat ndax dama ciy bëgg a jóg am pas-pasu jëlee ko fi ndax indi naa fi gendarmerie waay mel na ne kot li ma fi doon tere jóge ko fi ñooñu jox seen accord ñu daal di signé yóbbu ko ci état bi mu validé ko. mu door a jóg nag def déclaration ki lañ indee woon xaj yooyu nekkoon France ñiy dugg ci kër sëriñ si kenn ku nekk naan fii ab xaj waru fee dugg mu neen seeni moroom la ñuy fekk si loola pas-pas mënu ko weesu kon loolu moo taxoon mu indi fii li nga xam ne mooy brigade de gendarmerie ba nii mu yokko tey indi fi it li nga xamante ne sii mooy ndox ndax loolu mooy wa maskani sàlli minal fujaari wam nun ala ahlin bi maa in jaari fukki forage ak ñett la fi gas jamono ci Tuubaa ma géewul woon génnul bi am na pàkk yooyu da koo réservé woon xam ne dëkk bi dana fa àgg mu gas fa ay forage kaste ko bi dëkk bi màggee ba àgg fe dañoo bënn forage bi ubbi ko mu dem kon kooku bu nu taxawee di wax li mu symbolisé ci yoon wi ngeen indi seen télévision dañu ci laaj seen xalaat dañ ci sawar ndax gis nañ ne ñëpp koy seetaan te fu mu demit nit ñi danañ yindiku danañ xam ne kat sëriñ Tuubaa doxul ci caaxaan doxul woon ci ay ay am fo jàng ak jàngale inni ujaahidu bil hulumi wa bi tuqaa xabdan xadiman wal muhaymin shahidu kuy taalibe sëñ Tuuba génneewu ci kii génneewu ca kaa kuy wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu an muhammad rasulullah góor ak waaye nag jamu yàlla te teg ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku bëgg àjjana moo tax mu ne rajaa u bi sunnatil maahi xururun yaati képp ku yaakaar àjjana ci nii ko nit ñi di waxtaanee ci mbirum sëñ Tuuba te demewul noonu nee na bu ëllëgee da nga waru da koy teg ci jaamu yàlla teg ko ci sunna yonent bi ne ko yonent bi daan defee ka dem defee ko noonu ku ko ci deful day tallaahi laysa yanfahu sax su xadaa hinda xoloolu ramsihi xayra xudaa waat naa ko ci yàlla sëñ bi daa wax ne waat naa ko ci yàlla képp koo xam ne teg nañ la ci kóosu bàmmeel te dëwoo jaamu yàlla na la woor na bu ëllëgee da nga toskare kon yéen ñi seetaan télévision bi maa ngi leen di xamal ne leen murit gi sëñ Tuubaa woote mooy muridullah lii ñu ko tuddee di ko wute xaalis ménages yi bari coow li bari sëñ Touba jiwu ko kenn sunu comportement rek ci la nit ñi jaaree ba bëgg a yeb sëñ Touba te ñëpp ci am responsabilité média bi am na ci responsabilité site internet yi am nañ ci responsabilité ñun taalib yi pratique yi am nañ ci responsabilité kenn ku nekk la nga war a def da nga koy def su ko defee lépp dana baax ñu ngi leen di sant bu baax nag yéen waa Waarwi TV seen liggéey gis nañ ko ñu ngi leen di xool ci internet bi toujours seen liggéey rafet na. fépp fu manifestation diine nag gis na ne yéen nga fay taxaw tay bët la ñuy yor te yeewu nañ te waxtu jot yi nga xool ci internet bi waaye seen liggéey rafet na jërë ngeen jëf